tey nag bu fekkee dem nañu ba ñu woote waa assemblée nationale ñun dañuy wax ni euh, ñu ngi dañuy dañuy gërëmaat bu baax député coalition Yewwi Askan Wi ndax taxawaay bi ñu ci am waaye ni ki ñun ni ki euh, doyen Lamine Diallo ñoom taxawaay boobu lañ ci amoon tey ba tax ñu mën a convoqué bis bi mu nekkoon réunion bi bi ñu ñëwee tamit bokk na ci laaj bi ñu njëkk a laaj bi ñuy jëlee kàddu ci ñun ne laaj président assemblée nationale lan moo tax article 17 du règlement intérieur de l' assemblée nationale ci tëggin wu mujj wa maanaam alinéa in fine ba ca mujj dafa wax ni l' assemblée nationale se réunit au moins le bureau de l' assemblée nationale se réunit au moins une fois le mois ñu laaj ko ne ko lan moo tax yow le bureau se réunit au moins une fois par mois ñu laaj ko lan moo tax tërlin bii nga màbb ko tontu bi mu joxe dama leen koy wax dama leen koy liiral ni mu ko waxee noonu lañ ko bindee mu ne li tax defu ko c'est une question d'indisponibilité de sa part point lii la ñu tontu c'est une question d'indisponibilité de ma part point ma baamuwaat ko ma ne ko donc c'est une question d'indisponibilité de votre part point aba mm-hmm. sonawa lii la tontu maanaam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 Euh, d'abord la question des informations il faut ñu wax ko xam nga dafa am indente de transport bu ñu jox député yi bu tolloon ci 700000 francs non dañ koy wax parce que boobu ba léegi gis ngeen député yi taxe la ñuy jël banque bu ñu dem banque yi dàq leen amul benn député boo xam ne bi am na les moyens de circulation et oh, il faut qu'on le dise il faut qu'on le dise il faut pas avoir peur d'abord de la question parce que dafa bokk ci conditions yi député bi liggéey ñu jox ko loo xam day tax mu yombal liggéeyam gannaaw salaire ba gannaaw indil de logement ba dafa am le moyen de transport législature yi jaar Sénégal yi yëpp dañ ko yëkkati jox leen ko ñu bëgg ñoo gëmloo ni war ñoo wax ci question bi dañ ciy wax indemnité boobu mille la woon décidé nañ ñoom seen coobare bopp. je précise bien amul benn député bu Yewwi Askan bu toog ak kenn kilifa naan ko yokk leen lii wala def leen ko lii amul il l'ont décidé ils nous en ont informé ce matin ñun amul ci benn commentaire bu ciy def nañ def leen neex. mais sur les questions yi nga xamante ni bii moom lañ xamante ni bii moom lañ fa andi bokkoon na ci euh, la question des proposition de loi comme ni ko sunu collègue Aba waxee bi ci njëkk proposition de loi boo xamante ni bii soxna Mimi Touré ancienne députée wala député la sax ba léegi. ndax kenn notifié ko radiation révocation am moom moo déposé woon benn proposition de loi pour wax ni réew war nañ cee xaj ci ni ñu koy téye deret ak deret maanaam kuy sédd njabootam ñoom ñu jàpp ni sur cette question la ki ko dép ce n'est pas conforme à la constitution ndax constitution dafa wax ni réew mi war warul am xàjjeeg seen warul am ci xàjjeeg seen ci biir diine ci biir askan ci biir maanaam nangam indi yooyu yëpp. ba noppi wëlbatiku ne comme moom nekkatul député mënatul yanu projet proposition de boobu pour di ko indi ci assemblée nationale ci ci anam yooyu lañu ñu dàqe boobu am na proposition la boo xam Cheikh moo ko andi woon anam ci wàllu révision du code électoral lañ ci doon demande mooy conditions yi nga xam ne ci la ñuy defee inscription yi parce que li ñu seetlu mooy bi fi Macky Sall nekkee ba léegi boo dajalee période yi nga xam ne ubbi na révision exceptionnelle boo ko wàññee ci 12 ans yi matul 6 mois donc mu indi loo xam ne day tax loolu soppeeku pour ñu permettre sénégale yi ñu mën a inscrire loolu moo taxoon groupe parlementaire bi damoon saisir wàll yoon référé ba ba mu génne décret bi wax ni le 6 avril la mbir mi tàmbali jeex le six mai ñu ne ko at mu ci nekk dafa am révision ordinaire boo xam ne 6 mois lay duré dàq nga ko. indi révision exceptionnelle de 24 jours liñ lay ñaan fii la leen ko waxee woon mooy na koy yokk comme sa coobare bopp la ñu ngi la koy bàyyee mais yokk ko mu romb 24 jour dem ba 60 jours pour que ndaw yi ci réew mi yépp te di matal loolu ci diggante août deux ba bisu élection bi kenn xamul nu ñu toll ñu may leen ñu mën a inscrire jàmm ak salaam parce que diggante am carte d'identité ak diggante inscrire ji ci carte ci liste te ne bi 24 jours yi xajatu ci donc waaye dàq nañ ko ci lan nee nañu code électoral réforme bu ci mës a am ay déggoo la woon ba kon du ñu mën a du ñu mën a nangu assemblée nationale di ci jël loo xam ne lii ala xaal ca waxtaan yooyu lañ koy mën a bàyyi. la muy tekki bu ngeen déggee olof wala ngeen bu ñu mënee firi li muy tekki mooy ca dialogue ba lañ koy waxtaanee ji ku demoon dialogue sa affaire la beneen bi.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 bépp député bu nekk Yewwi Askan Wi signé na signé ko pour ko ñu def la criminalisation de la loi de l'homosexualité lañ ñu tontu nag fii mooy am na fi loi boo xam ne bii 1900 la woon 60 moom indi woon na daan yi ñu ca doon teg muy acte contre nature waaye ñu wax leen ne leen acte contre nature am na une jurisprudence boo xamante ne bii la muy tekki ak li ñu ko bëgg a tekkiloo fii du bennati ndax acte contre nature boo ko bëggee jël bëgg ko dugal ci biir ngóor jigéen léegi ñoom génn nañ ci ngóor jigéen maanaam ci àdduna bi wërngal képp ba ñuy tënk ñoom di tekki lay wax ca baatu acte contre nature dañ cee génne bis ni ngi tey lépp loo xam dafa jëm ci wàllu ngóor jigéen ak lu seexoo moom kon bu ñu bëggee wax ne loi ba fa nekkoon ma koy dàq foofu di ko fa duma dañoo ne déedéet li ñuy laaj mooy daan yi ñu ci doon teg nañ ko gën a dëgëral ndaxte li ñuy wut ci loi ou danga koy yéegal ngir mu gën a raglu ba nit ñi bàyyi yenn yi ou bien nga woyofal ko boo bëggee mandargaal boo bëggee jëmmal benn taxawaay lañ ci xamal mooy gannaaw loola soxlawuñu fii loi boo xam ne bii dafay indi ay daan bees di ko ci teg sur la base d'émotion qui nous coûte un remplissage de nos prisons maanaam ci naqar naqaru xol goo xamante ne bii li muy jur mooy prison yi fees ak nit lii may wax nii nit ca ñoom moo ko wax fii bu jotee mën nañoo leeral kan moo yëkkati kàddu yi xam nga lam ci teg mooy c'est une réalité insignifiante dans l'espace public c'est une réalité insignifiante dans l'espace public donc lii ci anam bii lañu ñu dàqe ne loi bi proposition bi du jàll mais dañoo bëgg indi benn laaral boo xam ne bi dañoo bëgg ñu weccee ci parce que lépp lu ñuy doxal ci réew mi dafay wéeru ci yoon wala mu ñàkk ci wéeru bu ñu demee ci assemblée nationale ñaari charte mu ñu tënk benn bi constitution la beneen bi mooy le réglement intérieur de l'assemblée nationale mais règlement intérieur de l' assemblée nationale ba muy wax li assemblée nationale di liggéey yépp dafa indi fi nga xam ne ni foofu la ñuy waxee li ñuy wax les propositions de loi parce que foofu loo xam dañ ko war a leeral ñi nga xam ne bi ñoo séq wàllu sanc ay yoon sanc loi ay tërëlin bu weesoo gouvernement ak président te ñoom li ñuy indi tudd projet lépp loo xam ne député da ko indi te mu jëm ci fent loi wala ay askan jox ko député député yenn ko pour indi ko ci biir assemblée bi kooku ma ngay tudd proposition de loi mais li ñu wax mooy li may liir nii mooy article 60 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ñoom li ñu dàq yëpp kon dañ ko dàq pas parce que dañoo wax ni ci la question de la recevabilité moom la ñuy agsi parce que recevabilité yoon da ko wax indi ko fii yemale ko ci ay conditions yoo xam ni moom la leen bëgg a leeralal alinéa 6 dafa wax ni les propositions formulées par les députés ne sont recevables lorsque leur adoption ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices li muy tekki mooy bépp député boo xam ne bii da ngaa indi sa xalaat ci proposition de loi tërëlin yu yees ci réew mi wala soppalin ci tërëlin yi nga xam ne moo nekk ci réew mi dañ ne nangu ko ñu waxtaane ko ci bureau assemblée nationale ma ngay dagan bu fekkee ni proposition de loi booba indiwul di wàññi koomu état wala muy indi ay ay ay bëgg-bëgg yu yees ci wàllum koom ci état wala bu fekkee ne da koy indi yow député bi ko proposé nanga wax état fan lay jëlee ci xaalis boobu proposition de loi sur l'homosexualité la question de la recevabilité wax leen ma fan lay indi lii nga xamante ni bii mooy la question d'une diminution de ressources wala création de charges nouvelles amut mais liñ ci seetlu ci yëpp mooy nii lañ ko dàqe foras dalu xëddén te li ci lii mooy li ci les commissions d'enquête parlementaire ndax li tax commission d'enquête parlementaire di am kooku bu ñu demee ci article 48 lañ ko fay fekk commission d'enquête parlementaire ñun bu ñu leen ne yaay député indi leen la budget ministre bi ñëw na ne la sama budget euh, euh, cent cinquante milliards la wala soixante milliards la wala six milliards la ñu werante fa wax fa lañ fay wax ñëw nañu voté député yi ci ëpp ca ñoom voté ba ñu ne ministre bi jox nañ la six milliards yi nga doon laaj mais du ñu jël nit jox ko xaalis ne ko demal. mu dem amatuñu toppatoo lu ñu koy toppee dañoo ne le contrôle a posteriori yi ba nga ko joxee ba mu dem ba noppi da koy dabaloo dab da nga koy dabiwaat waat ko ne ko kaay étape bu jot dama bëgg nga xam ne suñu xaalis bi ñu nga xam te ni moom la Sénégal yëpp cotisé woon jox la ko yow na wax fu mu dugg. commission d' enquête parlementaire les commissions d' enquête parlementaire yi nga xam ne bii moo fi ñëw yëpp mën nañ koo lim ma bëgg leen laaj ay laaj situation administrative et financière de la poste poste. lu toll ci cent trente milliards réer na ci biir post ci depuis deux mille quinze ba fi mu toll nii moo indi jafe-jafe poste yi waaw ñu ne nañ fa créer commission d'enquête parlementaire parce que loo xam ni lii état moo ko moom la comme di fa dugg ba partenaires yi ñëwoon wax ni nañu considérer nañu xool ni poste mii ko dafa sa ngéem nañu xool lu ñu koy mën a dimbale ba ñu war faa xaalis loolu yoon la député yi wax Sénégalais yi ne dem nañu post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 les déclarations d' importation de produits alimentaires mooy dépasse yi ci wàllu importation de sucre am na ci loo xamante ne bii kon am na saytu bu ñu ci war def ngir indi ci ay leeral ci par rapport ak ñoo xam ne dañ leen ko jox ci condition yoo xam xamante ni bii jàpp nañ ni war nañ cee mën indi saytu buy tax ñu teg ko ci yoon. war naa leer war warta leer ma indi la beneen mbànd yi nekk fii ci Bargny dañu fay toggee këriñ gi ngir mu indi courant ñun ñëpp seetlu nañu ni fan yii paase njëgum courant yokk na njëgum carburant yokk na. te ñun ñu ne am nañu mbànn moo xam ne mën naa togg loo xam ne dina dugg ci courant bi xëy na mën ko mën na ko yombal waaw bu fekkee ni Senelec dafa signé benn contrat ak lu ñuy wax la compagnie d'électricité du Sénégal du noonu la am. waaw bu loolu bu amee te ñun ñu wëlbati ko ne dañoo am problème mu courant wala dafa cher wala nangam mais yoon la ñu dem fañ koy toggee xool ndax togg ba bu fekkee ni fàttewuñu tamit ne askan wa dëkk foofu ñoom xeex nañ loolu ba sonn ne lam leen a jural ci ay jàngoro ak ay tolof tolof doon na loo xam ne lii war nañ faa mën a dem pour xam mu demee. commission d' enquête parlementaire jaadu na wala jaaduwul ma dellu ci beneen ñu wax ni building administratif bii xam naa ne moom mook mook mook second mandat bi ñooy jeexandoo ndax koo xam ne kii da nga fal ba nga faloo nga tàmbalee tabax tabax tabax bu mënut yegg jàpp nañ ni février 2024 construction bi dina jeex mais en tout état de cause bu ñu tollee noonu ci ay xat yu baree baree bari lii mënta set mënta leer te xaalis di ci dugg saa su nekk te mu suñu xaalis itamit mais am na nañu sañ-sañ wax ni war nañoo def commission d'enquête parlementaire parce que liggéey la boo xam ne bii yoon moo jël may ko député ne demal nga leeral askan mi fi seen alal dugg demal nga leeral ay loo xam ne ay laajte la ñoom yu ñu laajte seen bopp yi te setul kon jàpp nañu ni loolu war nañ ko mën a def ñu waxoon ñu ne kër yi ba ñu fi ñëwee dóor dàq bi ñu doon dóor dàq nit ñi jiiñ leen tuumaal leen xaxar leen yàq seen dar def nangam def nangam def nangam jëli nañ ci 200 millions 200 200 milliards 200 milliards nag kenn du ko jël di ko def ci kalpe bu fekkee ne alalu Sénégal la dafa am fu muy jaar dugg ci budget ñëpp seede ne dugg na ci budget bi nga mën koo lii gis nañ ko tase dañ doon wax ni nañ ci def saytu bi tax ñu xam 200 milliards yi fan la dugg ci biir senegal ci dënnu kan la dugg ci gémmiñu kan wala ci ban caisse du trésor waaw loolu wala jaaruwul beneen bi ligne de crédit bi nga xamante ni bii moom lañu ñu ubbil waa jooju ñuy wax Gabi Perez ci dañu joxoon ko fi ci weccoo boo xamante ni bii cent ligne de crédit de cent quatre-vingt-seize milliards de francs ñu jox ko fi suuf soo xam ne dañ ko jox li ñuy wax bail emphytéotique mooy mën ngaa samp fii say tabax juróom fukki at yii di ñëw def ci lu la neex luyal nangam nangam nangam nangam nangam defal ci condition yoo xamante ni bii leerul. ci fi te fi ñu koy fañ leen koy loo ñu jàppoon ni suuf la soo xam ne fii au commandant de la gendarmerie nationale ñoo fa ñoo fa sampoon seen i tànk loolu war naa indi jaaxle na ñu seet ko wala waruñu ñu ko seet ak sur les licences de pêche yi nga xam ne bi euh, sunu collègue Aba indi la ko leer waaye yii yëpp bu fekkee ni dañoo taxaw ne nañ ci def ay commission d'enquête parlementaire te li ma wax nii nag dafa am yoo xamante ni doyen Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo am na liggéey bu am solo boo xam ne yu bare bare bare ci yi may wax nii. da ko ciy bind ni koy Guy Marius Sagna Abass Fall Birame Souleye wala ñeneen ñeneen noonu lañ ci taxawee ñëpp taxaw ci waaye lii mënut a nekk mbirum par parparloo mais nanguwuñ ci benn benn benn yëpp lañ dàq France dallu xëddeen set contre 9 9 ci ñëw fee ca ñoom ca ñoo ca toogoon kenn bëggul commission d'enquête waaw bu nekkee dañoo nekk ci réew day joxe suñu xaalis te saa yi soo nekk kaa ñu leeral ñëpp gëmm seen i ba taf seen nopp tëj seen gémmiñ moom xam naa ne kon dara du fi leere wax nañu ci question euh, euh, orales yi ak les questions au gouvernement delloo nañu les présidents de groupe ñu toog waxtaan ci seen biir pour tëral charte yi nga xamante ni bii kestion ya fa daje noonu lañ ko war a séddalee ngir ministre yi ñëw tontu ci ngir askan bi am lu koy leer ci wàllu woowa kooku jàpp nañu ne mardi ci lañ ci war a daje pour wax ci bi ci mujj bi ci bi ci bi ci mujjoon di la haute cour de justice ndax dafa am résolution bu ñu génnoon wax ni ci Covid bi milliards yu bari ñu dugaloon ci ministères yi ñu koy jënd ay poti fleur wala ñu koy jënd singom wala tàngal mant nañ ko leeral waaye képp koo xam ne ki njort nañu ni sa loxo laal na ci ci lii lu dañuy tarfatal ay ni na nga ñëw wuyu ci kanam haute cour de justice ndax haute cour de justice nag mooy ki nga xam ne bi moom la ci Sénégal gii ñu may mu mën a àtte koo xam ne kii ministre la bañ ko defee yi tamit ñu waxoon ni bu ñu sampee assemblée nationale bu ñu ko xasee ba samp rek weer wa cay topp war nañu installer haute cour de justice boobu gis ngeen Guy Marius Sagna xaxar na ci bay bëgg a dee fu mu toll nii boo ko seetee da wax ba ba ngaa mi ba ngaa mi ba ngaa mi ceene kenn faalewu ko mm-hmm. ñun tamit jàppale nañ ko ëf nañ ba sonn kenn faalewuñu waa léegi nag jàpp nañ ne war nañ koo samp mais résolution boobu ñu ca indi woon ci wàllu haute cour de pour que ministre yi nga xam ne seen loxo dafa laale ci lii ñu mën leen atte dañ koo dàqali ba ñu samp haute cour de justice parce que haute cour de justice dafa am composition huit députés ñoo koy composé huit suppléants la ñuy doon premier président de la cour suprême moo koy présider donc dañuy jël dellowaat huit yii ci quotient ba ñuy wax quotient ba ñuy déterminer pour calculer groupe parlementaire bu nekk ñaata nga ciy mën a am kon loolu aussi dellowaat nañ ko groupe yi danañ ci waxtaan mais bu ngeen gisee ñu woote jataay bi lii lañ waxoon ni danañ ko andi wecce ko yéen comme ñu ba ñu amee ay jaaxle dañ leen a woo ngeen jàllale leen suñu kaddu bu ñu ooxee nañu kaay leen ñu wax ca la ngeen doon jàmbat danañ ko dël sa ci yéen jaarale ko ci yéen ngeen mën ñu ko dugalal ci noppi sénégalais yi ñu xam ni ñun de suñu taxawaay weesuwul ci bëgg rek rek rek rek rek loo xam ne ni lañ ñu sant ñu doxal ko nam ci waree du ñàkk nag njuumte am ndax ay jaam yàlla lañ kese lañ mais bëgg nañu mu leer ci sénégalais ne defar dong moo tax a jóg ngeen baal ñu wax salaamaaleykum wa